sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'ihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi diin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu santee yàlla sunu boroom julli ci sangu àddina ak alaaxira te mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd muy jàmm yàlla ak xéewalam ak barkeem di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na ko yàlla wàcce ci àdduna bi yépp waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara yi sunu kilifa diine yu tedd yi nu am ci réew mi yépp jiital ci sunu kilifa sunu soppe suñu sëriñ alxalifatul amma sëriñ Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla moom itam yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla may gudd fan moom sëriñ kër Sy Mansour yàlla na dund at yu bare bare bari te li ko ay maamam bàyyeel tabaarakallaahu yàlla di ko gën a dëgëral noonu la ñuy nuyoo itam suñu bunt ci kër Seydil Xaaji Malick muy sëriñ Moustapha Sy bu sëriñ Abdul Aziz Al Amin di sunu sëriñ moom itam ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla sàmm noonu la ñuy nuyoo itam sëriñ Habib bu sëriñ Mansour borom daara ji moom itam muy suñu sëriñ di suñu soppe di suñu xarit ñu ñaanal ko moom itam yàlla na ko yàlla yokk dëgëral noonu la koy ñaanalee itam sëriñ Mansour si Jamil ñaanal ko sëriñ Maodo bu Cheikh Alhaaji Abdul Aziz Dabakh ñaanal ko sëriñ bay si Abdu waaye itam noonu lañu koy ñaanalee sëriñ Moustapha si bu sëriñ Cheikh Tidiane si Al sëriñ seex Tidiane si yal na yàlla yokk ay leeram jàngalekat bu mag boobu nga xam ni ba léegi nit ñaa ngi gindiku ci ay waxam noonu la ñuy nuyoo sëriñ Moustapha si responsable moral nuyu waa daairatul mustarchidiine wal mustarchidaati bi yëpp. fa tabaarakallaahu suñu soppe ya ñu fa am yëpp alxaaji Modou Guèye ca Makka Njaay ñu ngi koy nuyu di nuyu Mbay Ma Faal ñoom ñëpp tabaarakallaahu Daam Guèye Daam Xadiloo ñu ngi koy nuyu Ama Guèye ñu ngi koy nuyu Aline Badara waa Makka Njaay ñooñu nga xam ne ay soppee Serigne Cheikh Tidiane si almaktum lanu ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla na yàlla kàttanal leen ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo itam Serigne Muntaxa Bachir alxalifatul am li taifatil muridiya ñaanal ko moom itam moom Serigne Mountakha Bachir yal na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla kàttanal Serigne Mountakha Bachir ci pas-pasam Serigne Mountakha Mbàkke ci mbaax gi Serigne Mountakha Mbàkke ci bëgg yàlla gi fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ñaanal leen nuyu Serigne Bass Abdoul Khader ñaanal mbooleem njabootu maam Cheikhul Khadim bi yëpp ñoom itam yal yàlla kàttanal leen yàlla sàmm leen ci darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo itam Serigne Cheikh Tidiane Niass ca kawlax ñaanal ko yàlla moom itam yàlla ko yàlla yokk dëgëral yàlla ko yàlla sàmm ak mboolem njabootu Maulana Cheikh Ibrahima ñas gépp nuy waa Lew na waa Kaolack ñoom ñëpp ñu ñaanal leen yàlla yàlla kàttanal leen. nuyu itam njabootu maam Abdul Xaadir Jeylaani gi yëpp sunu mbokk xaadir yi ñaanal leen ñoom itam yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla sàmm leen wàcc fii ci ndakaaru nag nuyu Chérif Abdoulahi Thiaw Laay ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla yokk dëgëral yal ko yàlla sàmm nuyu Serigne Cheikh Kalo Laay ca yëmbal ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla kàttanal ci darajay sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di nuyu président de la république ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla sàmm nuyu soxnaam Adja Marème Faye Sall yal na yàlla kàttanal leen jàppale leen ak mbooleem ñi leen di jàppale ci gouvernement bi yëpp yal na yàlla sàmm leen nuyu alxaaji Youssou nduur ziyaara ko bu baax nuyu Njaga Ndour nuyu nag alxaaji Buuba nduur ndax daaw sax dem na Màkka xaw ma nag lu ko fa yóbbu waaye daal dem na Màkka moom Buuba nduur ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla sàmm ci darajey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp fa tabarakallahu maaw Cissé mi nga xam ne moo nekk ci technique bi Apulaay Seydi Jamil sunu sëriñ ñu ko fàtte moom itam ñu ngi koy nuyu di nuyu tabarakallahu Apulaay ñoom ñëpp ñu ñaanal leen yàlla yàlla barkeel leen nuyu waa groupe Futurs Médias borom xam-xam yi fi nekk al oustaz Pape Anne Seyda Fat Bint oustaz Assane Seck oustaz Ndiaga Seck al oustaz Mor ñoom ñëpp ñu nuyu leen Pape Cheikh mu baax mi duñu ko fàtte moom itam yal na ko yàlla kàttanal ñoom ñëpp yal na yàlla barkeel leen madam Ba ñu nuyu leen ñoom ñëpp ziar leen yal na yàlla barkeel leen ñu ndokkeel leen itam ci weer wu tedd wi nu nekk xam nga ñu ngi ci weer woo xam ni fukki fan yu njëkk yi ak yi ci digg bi ak yu mujj yi lu ci nekk dafa am ci lu mu séddalikoo wax nañu ni fukki fan yu njëkk yi njëggal la fukki fan yi ci digg bi yërmande la fukki fan yu mujj yi nga xam ni ci lanu nekk njot la ci safara mbokk yi weeru koor day weer wu tedd weeru koor day weer wu màgg li ci yàlla dëxëñ moom weeru koor ci ay ngëneel guddi gu màgg googu nga xam ni bu jotee yàlla nee na malaaka yi dañuy wàcc di ñaanal nit ñi xéewal di ñaanal nit ñi yiw di ñaanal nit ñi barke ba fajar guddi googu ci weer wii la ko yàlla dëxëñ muy guddik laylatul qadri koor gi nag mi tàggatoo waaye jaamu yàlla moom du tàggatoo yéen ñi nga xam ni koor ba koor ngeen daan julli na ngeen xam ni bu koor gi paasee na ngeen di julli am na ñoo xam ne koor ba koor la julli am na ñoo xam ne bu nu xëccee kol di julli ci koor gi la jaamu yàlla du xewi du soppeeku yàlla daf ni woon sayduna muhammad bu rabbaka xatta yatiyaka al yaqiin yow sayduna muhammad jaamul yàlla ba keroog sa ruugi di tàqalikoog sa jëmm ci jaamu yàlla du période am na ñoo xam ni seen jaamu yàlla période la foo leen gisee ñuy julli koor gee ñëw wala ñu tàggee leen nit am na ñoo xam ne moom fu nu liiree seen estati gis ca rib commencé julli am na ñoo xam ne seen jaamu yàlla lay tax ñu def ko mooy dégg ñu ne am na ko faatu waaye jaamu yàlla mbokk yi du wàcc kenn waabut rabbaka xatta yatiyakal yaqiin yàlla nee na sayduna muhammad dee ma jaamu ba keroog sa ruu gi di tàqalikoog sa jëmm gi kon nanu xam ni weer wi weeru jaamu yàlla la mais jaamu yàlla koor geey tàggutoo di dem mais jaamu yàlla du fi jóg bu koor ñëwee nga ni doo jëw parce que yaa ngi ci koor gi bu koor gi jàllee nga commencé jëw bu koor jotee ngay julli di sol lu jot am na jigéen ñoo xam ni koor gi yépp ay jàllaabe la ñuy sol di yiwal bu koor gi jàllee continuer leen ko jaamu yàlla amul période am na ñoo xam ni bu koor gi ñëwee ci ngay xam ni ñii ndekete ay jullit lañ parce que yaa ngi leen di gis ñuy julli bu koor gi jàllee dootoo leen gis ñuy julli jaamu yàlla du événement waabut rabbaka xatta yatiyakal yaqin ñu bàyyi ci xel mat naa bàyyi xel yàlla bindu ñu mukk lu dul ñu jaamu ko waa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun yàlla nee na bindu ma nit ak jinne man yàlla wàccee leen ci àdduna bii lu dul ñu jaamu ma yàlla nee na li ma bëgg mooy ngeen jaamu ma maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu minhum an yut'imuun lu tax parce que inna allaha huwa arrazaqu zul quwwati almatin ki ëpp alal mënoo koo jaay alal ba mu saf ko yàlla ci boppam li nu am yépp moo nu ko jox moo tax mu ne lu ngeen mën a def lu dul jaamu ma rek wàcc ngeen ko yàlla nee na jaamu leen ma bu leen ma jaamu jaamu goo xam ne nag période lay doon sunu borom nee na jaamu gi ngeen may jaamu amul période waxtu yépp dee leen ma jaamu ñun nag jaamu wuñ yàlla ba pare nag gën a dal xel ñun jaamuwulu yàlla ba pare nag ñoo gën a dal xel ñépp koo wax mu ni sama sëriñ a may yóbbu àjjana amul benn sëriñ bu bind ci téere yi mu bind ne bu ëllëgee danaa yóbbu samay taalibe aljanna benn sëriñ waxu ko ku jaamuwul yàlla da ngay perte seyduna muhammad dafa woo Fatima doomam ba mu ñëw mu ne ko Fatima kuy sa papa mu ne ko yow kuy gën gi mbindeef mu ne ko yow kan la nit ñi yaakaar ëllëg mu ne ko yow kan la yàlla ni li ma bind yaa ma ci gënal mu ne ko yow mu ne ko mbaa xam nga ni li nga wax lépp même bu nekkee ci man man sayduna muhammad ëllëg yowmal qiyaam Fatima dara mën a la ko fa dara loo liggéeyul yow Fatima da nga koy perte waaw léegi yàlla bu ne yàlla euh, bu sayduna muhammad ne Fatima yowmal qiyaam man muhammad mën a ma la fa dara yow nga ne yow léegi yow sa sëriñ la yóbbu na jaamuwoo yàlla toog fi nga toog ne sa sëriñ moo lay yóbbu te yonent bi ne Fatima yowmal qiyaam loo fa jëful doo ko gis wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura yowmal qiyaam lu waay liggéeyul doo ko teg bët caaxaan yee bari rek mën ngay tëdd nelaw jaamu yàlla def lu la neex yow li yàlla santaane defoo ci tus bëgg a jël sa sëriñ nag wéer ko ko sëriñ sépp a seen responsabilité yowmal qiyaam teel nañ ko bind wax ni ku jaamuwul yàlla dangay ngay perte ah lan la alaaji malik bind yaa man yuridu jinaanal xuldi yaskanuha faqat di man talabal miftaaxi toxtarami seydil xaaji malik nee na bu dee àjjanaa la ñor jéema la jaamu yàlla ba turve caabi jëla fay dugal moo ëpp solo alaaji malik dafa daaneel rek cheikhul xadim feelu ko sëriñ tuubaa ni laa tashtari dunya bi uxra yaa man baa nuuran bi duja fa sa yëndamu cheikhul xadim nee na ku jaamuwul yàlla dangay ngay perte ku jël sa leer jëndee ko lëndëm da ngay perte jaamu yàlla mooy dëgg ku ko deful dangay ngay perte Sénégal nag léegi fi ñu toll mooy concurrence du tariqa sama tariqa gën sa tariqa sama tariqa du seen moroomu tariqa te mag ñi bàyyiwunu fi loolu xamoo ni guerre si guerre civile bis buy dekkiwaat ci réew mi tariqa yee koy indi parce que ku nekk jàpp nga ni pour nga sa pour nga tagg sa sëriñ da ngay blessé pas-pasu jàmbur mag ñi doxewul woon noonu alaaji malik doxewul woon noonu cheikhul xadim doxewul woon noonu Maulana Cheikh Ibrahima Niass defu ko Seydina Limaamu defu ko mag ñi benn lanu woon ñoom ñépp dañu jàppoon ni ay élément wu sunu borom lañ di liggéey rek di verser Seydina Muhammad looloo nekkoon seen yitte Cheikhul Qadim bind ni wa kullu wirdin yuridu almurida li hadratillahi walan yaxiida sawaun intama ila aljeylaani aw intama li ahmad altijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi boo demee ci téere boobu mu tuddee masaalikul jinaan da nga ko fa fekk Sëriñ Tuubaa nee na wird woo mën a jàpp te bàyyiwoo ko mu yóbbu la ci yàlla moo xam bu Abdul Xaadir Jaylaani la moo xam bu na Tijaani la moo xam ci yoonu murit nga sopp koo ca topp ci ñun ca yàlla la lay yóbbu bul diingat kenn alaaji Malik ne ko dëgg la at turuqu kulluhum ila rahmaani muusilatun muslikatun yaa ñun nag li nu jàpp mooy xas sëriñu jàmbul tagg sa sëriñ te ku ne la nga gëm gëm nga ko kenn mënu laa convaincre wala mu waar la wala mu seppi la ba nga démissionné ci tariqa ba nga nekk ñëw ci tariqam na ku ne gëm li nga gëm te rafetal si digganteeg ñépp bu nu demee sunu senegal gii ba tariqa yi léegi mel ni Real Bar Real Barcelone ku ñu ci invité ku bokk ci yow doo nelaw li nu jàpp ni mooy diw toj na télé bi mooy diw na ñëw yëkkati sëriñam te nopp yi déglu nit ñi dafuñu ku wax lu yenuwul maanaa nit ñi xam nan ko dafa am lu ëpp solo nekk ci réew mi di concurrence ak sëriñ dafa am lu ko ëpp solo li ko ëpp solo mooy ku ne jéem a jaamu yàlla ba fa cheikhul xadim jaaroon Seydil Hadji Malick jaar fa Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani jaar fa mag ñu mel ni ñoom fanu jaaroon ba am li nu am nga jaar fa dàq werante ci ay sëriñ te doo julli dàq commentaire ci ay sëriñ te doo julli kenn xamul lu muy nuru kenn xamu ko moo tax borom téere bi boom bu dee yaa ngi may topp ci ci sunu waxtaan wi passé maa ngi toll woon ak yow ci euh, wa ay maanit talaaqi wa intihaaril muslimi borom téere bi nee na jullit warta gëdd moroomu jullitam am na ñoo xam ni balaa ñoo mën a toroxal gor fekk ko ci booloo am na ñoo xam ne balaa ñoo mën a toroxal nit fekk ko ci public am na ñoo xam loolu la ñuy tiitaroo maa yilif diw am na ñoo xam ni dañuy nekk ci seen biir kër jigéen yendu ci waañ wi togg lakk coono bu ne mu daj ko dem ba yekk nga koy saboote ak di ko yuuxu di ko toroxal am na ñoo xam ne noonu lañuy def am na ñoo xam ne coono yi seen soxna di daj gisuñu ko xam nga woor ba ngoon jot nelaw ba yeewu sangu julli toog ñu indil la ndogu li taajal la ko kaka doon def xalaatoo coono yi mu daj waaye bu indee rek yaa ngi commencé kaas sa yàpp wi doyul sa mburu mi beesul ak coono ya mu daj mu ne jullit kenn du ko gëdd mu ne wa yi kenn du ko doyadal am na ñoo xam ne nag jàpp nañ ni ku nu gis ñu la gën réew mi nag baadoo la bu teraanga dab day jàpp ni ku mu gis moo la gën fii kenn gënul kenn benn VIP la yàlla bind ku dul Seyduna Muhammad doo VIP mais maa la gën gi moo fi bari xëcc mbagg fii ku am na ñoo xam ni cati lañuy la nuyoo nit ñi cati baaraam am na ñoo xam ni mbindaafoonu yàlla yi faale wunu leen am na ñoo xam ne respecté wuñu kenn alal ji leen yàlla dénk moo dem ba yóbbu leen ci beneen dimension ba gisatuñu nit ñi gisatuñu mbindeef yi am na ñoo xam ni seen mbewte àgg na ci lu leen neex wax am na ñoo xam ne jàpp na ni lu ñu bëgg dañ koo war a am mbokk yi wa tilkal ayyaamu nudaawiluha bayna naasi yàlla nee na attention jour yi day wëlbatiku mën ngaa am alal lool 2020 deux mille vingt 2021 ñëw nga mel ni mosoo liggéey mosoo am teraanga yàlla day wëlbati àddunaam bi am na ko ñàkkoon démb tey am na am na ko am tey ba bew sunu borom nee na ko boo soppikuwul amaana 2020 li nga am dootoo ko am 2021 bii di ñëw mbindeef yépp ay mbindaafoonu yàlla lañ koo ci gis jàppee ko comme sa bopp ngëneel amul ci sunu diggante xam nga ku gën ci ñun ki la gën a ragal yàlla moo la gën inna akramakum indallahi atqaakum am na ñoo xam ne bañ nañ seen cosaan am na ñoo xam ne dëkk yenu jóge du nu ko tudd bañ nañ seen cosaan am na ñu dëkk ci dëkku àll yi boo leen laajee foo dëkk dañuy am complexe wax fa nu dëkk te fa lañ cosaanoo nit du bañ cosaanam loo mën a am na la sa cosaan gën a lépp Seyduna Muhammad ba mu jógee Makka dem ma diina la mu fa yàgg yàgg jóge na Madina dellu siwaat Makka nit day bëgg cosaanam nit day bëgg fa mu bokk waaw moo tax mu ni wa ihanatihi waaw mu ne wa sabbihi ak di ko ŋàññi jullit kenn du ko ŋàññi wa taxwiifihi ak di ko ragalloo fii gayri xaqin ci lu dul dëgg chariyin ba di ko jub charia waaw mu ne wa yajibu ba tey dana war ci mukallaf déglul li la téere bi di digal yow mukallaf xifzu basarihi wattu sa gis-gis ci lan minan nazari ci xool ilal xaraami ci lu xaraam jullit warta xool lu xaraam jullit warta xool lu bon réew mi nag moom lu baax boo ko fi dee def ñépp a ciy teg seen tànk waaye cëy bu la yàlla nattoo ba nga juum benn bis am na ñoo xam ne dañuy jonkanu nit di xaar defetam réew mi am na ñoo xam ne boo nekkee ci lu baax dañ lay jonkanu am na ñuy seetaan télé bëgguñu la soppuñu la xam nga lu ñuy xaar sa defet sa erreur nga juum suba ñu def vidéo corriger la bàyyi ko xel am na ñoo xam dañuy jonkanu nit daraam du leen raw du cofeel bu ko teg cofeel boo ko tegee cofeel da ngay daanu du cofeel am na ñoo xam ni li ñuy déglu mooy nit ku juum suba ñu def vidéo waaw nit ku juum bu fekkee yàllaa tax rek nga bëgg koo corriger xam ne doomu aadama matul ñëppay juum summiyal insaanu insaanan li kasrati nisyaan doomu aadama matul nit koo seetaan mu juum waaw jëlal sa téléphone woo ko ah waaw man kat ah waaw oustaz yow damaa dégg nga fiir firi texte bi nangam ni nga ko firee du noonu corriger ko ci téléphone bi mais nit ko juum nga xëy suba def vidéo vidéo ngay def pour corriger pour ñu partager la am na ñoo xam ni lu nu xam ñi ngi koy def pour nit ñi xam leen noppal leen seen bopp ku yàlla namul ñu xam la kenn du la xam am na ñoo xam ne dañ lay jonkanu di xaar sa defet moo tax balaa ngaa wax tëjul tëju tëju xoolaat affaire yi déglu version yi ci mag ñi wax ñi la raw nga déglu leen réew mi am na ñoo xam ne boo fi dee def lu baax du nu ko tudd benn bis ngay xëy juum <laughs> danga naan xanaa du ñii ñoom ñii ñoo ma daan apprécier ñii ñoo ma daan kar di jooy xanaa du ñii xanaa du ñii ñoo ma daan woo téléphone di jooy loolu ngay wax am na ñoo xam ni defetu nit lañu yàkkamti dañ lay jonkanu bàyyi leen xel mu ne waye wayajibu alayhi xifzu basarihi jullit day wattu gis-gisam min an nazari ilal xaraami jëmale xool ci lu xaraam mu ne walaa yaxillu lahu du dagan mukk an yanzura muy xool ilaa muslimin ci benn jullit bi nazratin ci xool boo xam ni tuzihi daf koy lor borom téere bi nee na jullit warta fixé moroomu jullitam xoolu mbañeel xool nit rek jéppi ko te defu la dara di ko xeelu mu ne nag illaa an yakuna fasiqan ndere dafa nekk di saay-saay koo xam ni bëggul yàlla soppul sayduna muhammad te ci saboote diine ji la nekk kooku nag boo ko dee xool fixé ko waaw waaye ki nga bokkal diine amoo droit di ko fixé waaw mu ne bu dee kooku nag fa yajibu dana war hijraanuhu nga tong ko taf ko waaw ku bëggul sa diine daal taf ko mu ne wa yajibu dana war ba tey alayhi ci mukallaf xifzu jamia jawaarixihi mu wattu mboolim cëram yi temps ak kéem kàttanam wattu say cër sa loxo bii doo ci jël loo wër jël am na jigéen ñoo xam ni seen poche yi jëkkër yi lañuy dugal seen loxo di sàcc ay ñaar téeméer rek i deux mille sàcc la sa jëkkër lum la joxul boo ko jëlee ci poosam sàcc la bàyyi ko xel waaw ndax yow mal xiyaam nag yàlla day audité cër yi dana laaj làmmiñ loo ma <laughs> yàlla ne na làmmiñ rek laay takk parce que du wax dëgg ma laaj nopp loo ma sa dégg bët loo ma sa xool tànk yi nga xam ni fu waay dem moo la fa yóbbu yàlla nee na danaa ko laaj foo ma sa dem allahu akbar imagineel ñiy dëkk dëkk pour liggéey doomu jàmbur nag imagineel ñiy voyager dëkk ak dëkk pour tas yu jàmbur imagineel ñiy voyager dëkk ak dëkk pour wuti sunguf ñëw ci kër gi ubbi cin li dugal ko ci biir cin li jàpp ni kenn gisu la bàyyil xel yàlla am na ñoo xam ni seen lépp mystique la gëmuñu yàlla ñeme sëriñ da ngay takk sa soxna sax am ñu koy woo di ko yóbbu ci ay sëriñ ku la niwul damay dem ci sëriñ bëggumaa dem ci sëriñ nga ñëw di ko jël yow di ko wutali sëriñ te naan ko sëy bi boo bàyyeekoo ñu déjjati la bàyyil xel temps bi nga def di wuti sëriñ di yàq doomu jàmbur bàyyi ko xel nan la nit di toogee di def moroomu nitam lu bon Sénégal li fi xew kenn xamu ko toog di def nit ki bon amoo ci benn intérêt te réew mi la Serigne Cheikh Tidiane si waxoon dong nga nekk ku ñuy sarax ngàddu gura la bëgg réew mi ku ñuy sarax ngàddu gura danañ la bëgg moom daal boo tekkiwul dara amoo dara sunu borom bind la nga bokk ci way ñàkk ñi kenn du la calculer da nga am jàmm <laughs> waaye cëy bu la yàlla mayee teraanga boo fi ñàkkee dix ans ci ginnaaw xëy xëy am teraanga am nga problème réew moomu nag lanu nekk di fi dund réew moo xam ni kenn du am réew moo xam ni kenn du am succès réew moo xam ni ku ne ñi ngi lay bonal boo demee ci internet bi kilifa gu nu avisé yi genn wàll yi ay saaga la ñi nga xam ni seen dundin neexu leen ni leen yàlla def bëggoon a mel ni nit ki te yàlla defu la ko nga koy saaga looloo am ci réew mi temps bi ngay jël sacrifier ko ci ci liggéey nit ki waaw Serigne Cheikh Tidiane si waxoon na ko ku ñuy yërëm ku ñuy bëgg daal mooy ki ñuy yërëm ngàddu gura waaw mu ne nag nga wattu say cër sa kéemtalaayal kàttan mu ne wa an yuhibba lillaahi borom téere bi nee na saa yoo demee bay bëgg nit na yàlla tax lépp looy bëgg rek na yàlla tax allahu akbar bëgg te yàlla tax jafe na de ànd ak nit ca ba muy am mu xëy xëy ñàkk dikkal ko nga gën a toog ànd ak nit dara jotu ko mu xëy xëy feebar nga ne tey laa gën a mën a toog ci sëy bi ànd ak nit muy am mu xëy xëy ñàkk dikkal ko nga gën koo téye bëgg te yàlla tax bëggoo ngir intérêt waaw bëgg te yàlla tax bëgg dafa am solo waaw borom téere bi nee na lépp lu nit di def na yàlla tax mais am na ñoo xam ne bëggatuñu te yàlla tax intérêt tax naa dugg ci sëy bi pour intérêt parce que diw milliardaire la su ma ci duggee sama yaay defaru sama famille defaru ma dugg ci pour lan am ci teraanga naa ci dugg am doom am na jigéen ñuy sëy ñoo xam ne jàpp nañu ni ki ñuy sëyal moo leen di njëkk faatu ñuy profité di am ay doom yu bari pour dond naan bu fi jugee ku la wax yow ndax kii yaa koy njëkk dem wala moo lay njëkk dem dëgër fit yàlla dalaa wax yow kii moo lay njëkk ba tax ngeen di concurrence am na wujj yoo xam ne ñi ngi tukkal àdduna concurrence bu mel ni tulleeg màlle ci réew mi ñaari wujj yoo xam ni ku ne loo xam yaa ngi koy def sa moroom ci lu bon façon dëddale yu bon yi ne ci réew mi ñeme sëriñ gi ne ci réew mi ku sa jëkkër takk nga defi pexe ba mu jóge fi naan fii maa fi goor boo fi gooree di liggéey nit ñi bu sa bu ëllëgee nga goor biir safara yàlla nee na am na loo xam ne ku ko def nit ba ëllëg dajeeg man danga xam kana yàlla jigéen ñaa ngi wujje ci kër yi wujje wu doy waar liggéeyante bi sa doomu wujj yu bon yi nga leen di def xale yi nekk ay xale xàmmee di ko bàyyi xel am na ñoo xam ne li nga leen di def ci lu bon dañ koy enregistré mi ngi mi ngi ñu téye te àdduna daa gudd tànk bari na tey koo xam ni ki la yor di la faj di la dimbali lu bon lu ne def na def nga ko ko am na ñoo xam ni seen doomu wujj yi nu sonaloon di leen bunduxatal tey ñoo leen yor am na ñoo xam ni jàmbur yi ñu daan sonal tey ñoo leen di dimbali lu bon kenn du ca sax lu bon kenn du ko def am na loo xam ne ku koy def nit du ko fàtte moo tax bul fàttaliko boo fàttalikoo soxor am na ñoo xam ne boo fàttalikoo doo leen defal dara waaw del fàtte rek yu bon yi moom dee ko fàtte rek góor ga daf ni woon àdduna ñaari mbuus ngay yor benn bi nag danga koy bënn lu la nit def ci lu bon ci mbuus mi nga bënn nga koy sotti mu jàll dootoo ko teg bët waaw lu la waaye defal ci lu baax nag defal ci mbuus mu baax mi bu ko fàttee mukk nit du fàtte teraanga lu la nit defal da koy fàttaliku waaw mu ne wa yubghida lahu doo ko firee booy bañ nit ndax nit kenn du ko bañ waaye wa yubghida lahu booy sib nit nit kenn du ko bañ jikkoom ngay sib waaw lu tax diw neexu la parce que dafa mën a wax lu dul dëgg lu tax diw neexu la parce que dafa mën a jaxase nit jikkoom la ñuy bañ waaw mu ne képp koo ciy bañit na yàlla tax mu ne wa yardaa lahu booy gërëmit na yàlla tax mbokk yi est-ce que léegi nit ñaa ngi gërëm te yàlla tax ngërëmu intere yi bari na fi de waaw fay la xaalis rek nga takk rajo yi am say ñaari soxna ka gën a góorgóorlu doo ko gërëm mais ki mujjee ñëw comme am na teraanga moom ngay gërëm am na goro yoo xam ni ki njëkk a sëy si ci kër gi defal na leen teraanga bu nekk toppatoo na leen heure bu nekk jëndi na ordonnance heure bu nekk faj na leen heure bu nekk taxawu na leen heure bu nekk gërëmunu ko ki mujjee ñëw am na teraanga mooy wàccee jesneer yi mooy joxe teraanga yi moom la ñuy gërëm ndax lan am amam am na ñoo xam ne seen ngërëm yàlla taxul am am a tax ki mujjee ñëw daal yor ay teraangaam la ñuy gërëm moom la njëkke yi di estati moom la njëkke yi di gërëm moom la ñuy waxtaane parce que lan moo gën a duuf la suukaru koor parce que am na ñoo xam ne seen kii la topp wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaaratun bi suui illa ma rahima rabbi yàlla nee na am na ñoo xam ne seen kii moo leen di sànk lu leen neex la xam benn ngërëm tegootul ci yàlla ngir yàlla ngërëm ngir yàlla rek seede ngir yàlla rek da ngay war a seede ngir yàlla sax mais yaa ngi xalaat naan su ma ko seedee tam diw mer fala réew mi toll waaw ku mujjee ñëw am teraanga ñu teg ca kaw Sénégal moom amal xaalis rek bu la bu yàlla dénkee teraanga da bari ay suq suq yu lay dunguru duñ la wax dëgg bëgg ci sa poosa tax ñuy ànd ak yow bu la yàlla dénkee teraanga da nga ñu lay wax dëgg. bu la yàlla dénkee teraanga danga jàpp ni loo joxoñ mu dagg loo bari la bari la bari la romb loo moomul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi dem mais bàyyiwuma ci sama gannaaw lu gën doylu nit loo am na la doy bu daray àdduna fees sa bët <laughs> bu la dara ñor kii séddale kii la lii sa cër dana la ko jox wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha wala xabbatin fi dulumaati l ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin biin sunu boroom nee na garab yi na ci àdduna bi li muy bari bari bari bari fu xob waddee xob wadd dal ci suuf yëg naa ko dara ump ma kii teewlu lépp nga xam ne jamono bu nekk mi ngi ci en temps réel moom sunu borom mi ngi yëg lépp seetaanu la bàyyil xel bi nga yewwoo fudd tàllal say loxo mu tàllee ko nga dox sa ñaari tànk yi dara jotu la am na ko toll ni yow tëdd lalu hôpital bu bëggee tuur ndox dañ koy brancheel raakool mu tuur ndox am na koo xam ne li muy lekk raakoo a koy jàllale am na koo xam ne ba mu juddoo ba léegi daa feebar yii yëpp yàlla teggil la ko may la wér boo gisatee li keneen am doo nit luy alal luy teraanga mu tax nga doye bu mu tax nga doye di sénégalais ni mu la gisee la lay jàppee boo ko wanee ñàkk fayda mu jàppee la ñàkk fayda nga wan ko fu fulaak fayda mu jàppee la ni muy jàppee borom fu fulaak fayda mais bul doye di ngir nit bu daray àdduna fees sa bët lu yàlla jox nit dese na leneen pour pourquoi damaa war a nekk dunguru topp kii jël sama temps yépp passé ko ci moom di perte li kiy def ba am li mu am boo ko defee am li mu am kii séddale jugu fi li ma yor du jeex wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha sunu borom nee na li may séddale ak li ma yor ci teraanga man yàlla su ngeen ko doon compter ba yowmal qiyaam du jeex mu ne wa yubgida lahu booy sib nit na yàlla tax wa yardaa lahu booy gërëm na yàlla tax wa yaxdaba lahu booy mere nit na yàlla tax koy mere mere ko ci dëgg senegal nag léegi li fi xew mooy boo commencé yokk rek nit ñi mere la de lu luñ jotee ak yow dara dama xëy gis ko muy dawal Range Rover ñu mere la dama xëy gis ko muy dawal 4 x ñu mere la ku say teraanga yokk ñi la contre yokk lii mooy réew mi mere nit te defu la dara da ngay jékki-jékki nit dikkale la boo ko laajee lu xew mën a la dara dama neexul rek kii la kii du kii mbir mi kii la bàyyi leen nit ñi ngeen di mere te defuñu leen dara affaire bi kii la Sëriñ Tuubaa nee man Cheikhul Khadim mii ñu ne ko waaw bal la mu ne bi ma xamee ñaar ci laa noppalu ñu ne ko lan Sëriñ Tuubaa nee na bi ma xamee ne lor lor nit ki yee ko mën ci laa noppalu bi ma xamee ni jëriñ nit ki yee ko mën kii laa noppalu kii kii moo ko mën kii sëriñ Tuubaa nee na addurru wan nafau min arrahmaani cheikhul xadim nee na lay lor nit ak la koy jariñ yàlla képp kott dong moo ko mën keneen mënu ko fii yàllaa fi nekk mag ñi yàlla lañu àndaloon cheikhul xadim li mu daj ci ay coono daj ko ca ca ànd mag tubaab ba jëlsi ko bëccëg gëtën ko yóbbu ko prison coono bu ne mu daj ko moom Cheikhul Khadim ba tey lislaam bi yaatu lu ne mu daj ko moom Cheikhul Khadim nee na keroog bi nu may jël si ni nu ma téyee ñoom tubaab yi jàpp ni nag am nañu ndam ñoom jàpp na ni ñoom ñoo ma téye waaye Cheikhul Khadim nee na yëg naa ni malaaka ñi ak gaañu baax ñi ñoo ma accompagné bi may dox looloo tax yëguma coono parce que ñoom jàpp nañ ni man lañu gëtën mais man maa ngi yëg ni maag malaaka yi ñoo ànd asiru ma al abraari xiina asiru wa zanna al mag ñi coono yi nu daj ci jaamu yàlla cheikh alhaaji omar al fuuti taal daj ko ci ay coono xam nga man moom cheikhu omar li mu waxoon ne li kulli xatiilin naihaatin yanaxnahu wa laysa ala diini almuhaymini naaihun maam cheikhu omar al fuuti yu taal nee na réew mi daal xool naa ne ku ne am nga bàjjan bu lay kaasal ku ne am nga avocat ba mu des diine yàlla ji diine ji moom lu la neex wax lu la neex def mat naa bàyyi xel nan la nit di toogee di def nit lu bon waaye heureusement kay sottal mbir yi kenn la moom lu sotti rek moom la ginaar gi ngay rendi sax bu paaka ba daggee yàlla la yontu yàlla Ibrahima ba nu ko jëlee sànni ca sawara wa jàpp ni ñu ngi koy ñu ngi koy lakk sawara woo xam ne taal nañ ko lu ëpp ñetti fan mu tàkk jëppët ñu jël Ibrahima sànni yàlla daa bàyyi ba nu sànni maam Ibrahima yàlla ni sawara wee yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim nekkal climatiseur ci kaw Ibrahima point. gaa yi bi nu dellusee di xool ndax Ibrahima xëm na fekk na nu maam Ibrahima ci kaw sawara wi moom mu farankulaayu toog. yàlla ne du ñoom ñooy taal safara maay ñooy taal mais maay lakkal man yàlla lu ma niwul taalal du tàkk yentu yàlla Muusa nunu ko def yontu yàlla Muusa nga xam ne yaayam bi mu amee doom muy doom ju góor di yàlla Muusa te Firawna waxoon ni ku juddu ci dëkk bi doon góor nañ la rendi yaayu Muusa tiim yontu yàlla Muusa garde yi ñëw sone buntu këram mu xam ni garde yi firaaw naa leen yónni ñuy wër jigéen ñi fi wasin te am doom ju góor bu leen buñ koy gis di ko rey yaayu Moussa téye Moussa di xool xamul nu muy def garde yaa ngi sone bunt bi xam na ni bu garde yi duggee ba gis liir bi danu koy rey mu ne comme dañu koy rey ba dañu koy rey lii may togg muy ceeb bii naa ubbi cin li ubbi cin li jël Moussa sànni ci biir cin li te bi mu koy dugal kat cin laa ngi bax allahu akbar mu dugal yén mu dugal yont yàlla Moussa ci biir cin li upp kubéer gi garde yi ñëw ni ko danoo dégg ni dangaa am doom mu ne leen wër leen kër gi garde yi dugg wër ronlal gi yéeg ci kaw xool balcon bi vérifier gisuñu luy doom ñu ne ko ah fii kay dañ ñuy nax rek mais dara amu fi xam naa bu ñu demee ni Moussa bu ñu demee ni Firawna lii faux information la génn départ ña nga jëm ca pale ba pour wax ni Firawna fii ñu wax ni doom juddu na fi doom judduwu fi mais yaayu Moussa mi ngi am tiitaange ak ñeewante ci doomam ji mu lakk parce que jàpp na ni jamono boobu Moussa ñor na ndax bi muy dugal Moussa bu doon tey ceebu jën lay togg soble ba ñor na karoot ga ñor na jën ya ñor na lépp ñor na mu jël yonent yàlla Moussa na ca dugal ci biir cin li ëpp waaye ciy sunu boroom dafa ubbi cin li fekk yonent yàlla Moussa toog ci digg ñeex mi <laughs> sallallahu di julli ci yonent bi dara jotu ko mu seppi Moussa fomp ko ba mu jekk téye ko yàlla ni ko nag jël ko nga teg ko ci tefes gi dugal ko ci gaal nga yett ko ba mu jekk nga teg ci tefes gi en tout cas tegal rek yow bàyyi yaayu Moussa inquiété wu yàlla ni ko waaw man mi ko doon sàmm ci biir cin li ba dara xuriwu ko maa la ni teg ko ci gaal teg ci tefes gi bàyyi mu dem seetaan ko yow daal ak lu mën a xew dalalal sa xel inna radduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin yàlla nee na ko dalalal sa xel bi muy dem du yonent mais buy dellu si yonent lay doon danaa ko def yonent day dellu si tegal rek yow bàyyi mu dem mu jël Moussa teg ci tefes gi gaal gi bàyyi mu départ gaal gay dem firaw na fa mu dëkkoon ne day bañ doom ju góor ju fi juddu ndax seetkat yi wax nañ ko ni ku fi juddu te doon góor mooy folli sa nguur gi firaw na ni ku juddu doon góor nañ la rey xoolal kees ga mooy daw di daw di daw ba teer ci biir pale bi ci tefes gi soxna soxnas Muusa soxnas na gis ko woo Muusa ne ko lële ma seen mel na ni dara la ñu dajji kees gi mu yënt yàlla Muusa Firawna xool ko ne ko dañ koy rey mu ne ko bu ko rey amuñu doom amuñu doom maag yow nan ko fi bàyyi mu doon sunu doom xam nga jigéen am na nu muy waxee yow foog nga wàcc na mi ni woon ku judd mu rey la moo mujj d'accord bàyyi ko xale bi na ci biir kër gi mooy Moussa ñuy wër ku ko nàmpal ci dëkk bi amuñu ko Firawna ni ku fexe ba mu nàmp sa ween dama lay jël teg la ci pale bi muy nàmp nga koy ma fay par weer yaayu Moussa ñëw bokk ci rang bi ku ñu jël euh, gémmiñu Moussa jox la ko pour mu nàmp Moussa daw rang di dox ba agsi ci yaayu Moussa ñu jël Moussa jox ko yaayam mu sex weenu yaayam ñu embauché yaayam ci biir pale bi muy nàmpal Moussa ñu koy fay weer <laughs> kii la kii la kii yàlla daraam yàkkamtiwu ko lu sotti ci loxoom la sottee yaayu Moussa am ñaari bénéfice di nàmpal sa doom ñu lay fay moo tax loraange mënta jóge ci kenn na nit wax lu ne na nit suul lu ne na nit def lu bon lu ne bu sottee yàlla la xullan yusibanaa illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkalil muminuun nanu jëlaat sunu bopp jox ko yàlla nanu wuulu yàlla te gëm ko nag teg ci parce que gëm yàllaay tax li nit ki am du la déranger gëm yàllaay tax doo xool nit ki contre ko te deful la dara am na ñoo xam ne seen fii moo yàqu moo paan seen xol bi moo bon du nu supporter nit jàpp nañ ni lu nit am ay pexe ko ko may da ngay dee réew mi boo fi bañee nit sa ñaawaay gi mën na laa rey dangay da ngay xalaat ba sa kanam gi fuñu nga dee wa yubghida lahu wa yarda lahu wa yaxdaba lahu booy mere nit na yàlla tax mais mere nit ki lu ngeen jotee dara kii kay moom mu ko gis temps yi muy dawal oto bu bees daal affaire bi xaw maa déranger wala ànd ak nit ngeen di jànkoondoo mu xëy am jëkkër nga mer ànd ak nit ngeen war a dem fenn mu sañse lam sol dàq la nga sol nga ne ko nañ delluwaat ma changé parce que yëg naa ne yaa ma dàq dàqale ku la ëppale sa xol di tàng lu nit am doo ko nangu bërki démb la fi juddu bërki démb la am nàngam am na ñoo xam ne bu nu dajeeg yow ñu ngi xaar nga nuyu leen am na ñoo xam ne bu nu la woowee jotuñu la commencé kaas mais réew mi la kenn mënu fee dund ki fi mën a dund daal dem na te mooy Serigne Cheikh Tidiane si Al moom daal nee woon na sama ruq bi ci lay tëju di jaamu yàlla di ñaanal réew mi te ba léegi waxam mooy indiqué jamono bi ba léegi ba léegi waxam la ñuy référencé woo waaw moo tax mu ni wa ya'muru bil ma'rufi jullit dafay digle lu baax wa yanha anil munkari mu ne jullit itam dafay tere def lu bon waaw digal na la nag yi jullit war a def léegi nag mi ngi lay tere yi xaraam ci jullit nga xam ne jullit waru koo def moom lay wax nii mu ne wa yaxrumu dina xaraam alayhi ci mukallaf ñu ne ko lan mooy xaraam ci mukallaf mu ne alkazibu fen Seyduna <laughs> Muhammad nee na nit dana nekk ci àdduna di fen di fen ba nu soppi turam ca aras tuddee ko fenkat am na ñoo xam ne bul jàpp ni tur yi ñu leen di woowee fii noonu lañ tudd ca kaw de tuddaat nañ leen bu yàgg waaw am na ñoo xam ne seen mën a fen tax na yàlla nee na soppi naa seen tur ca kaw yonent bi moo ko wax iyaakum wal kazibu fa innal kaziba yahdi ilal fujuur wa in alfujura yahdi ila annaari wa maa yazaalu rajulu yakzibu wa yataxarra alkaziba xatta yuktaba inda allahi kazaban muhammad nee na nit dana nekk ci àdduna di fen ba nu soppi turam ca aras tuddee ko nga xam ne malaaka yi bu ñuy tudd si tur dañ naan fenkat nangam waaw wal ma fenkat nangam te loolu jullit daf koy moytu yonent bi dañ koo fekk mu toog ñu laaj ko ni ko Seyduna Muhammad mu ne waaw ñu ne ko jullit dana sàcc mu ne ahanka yi jamono mën na koo mën mu sàcc donte le bàkkaar la jullit dana jëw mu ne ahanka yi seytaane mën na koo mën mu jëw donte le la ñu ne ko jullit dana fen njool màkk jug toogaat ne déedéet al muminu laa yakzibu yonent bi nee na jullit mën naa def lu ne ba mu des fen jullit du fen mais réew mii bu doon ku fen am béjjën réew mi bu doon ku fen rek yàlla jox la béjjén fi nga toog fooraa nit di nga ko gis fooraa fooraa xam nga fooraa mooy fa ñuy jaayee nag ya da nga gis fooraa bu nu kër yi ay nit ñëppay mbëkkante am na ñoo xam ni fen lañu jëfandikoo ba yàq diggante ñaari nit ak nit wax ci diggante lu dul dëgg réew mi dañuy fekk ñaar ñuy ànd ñu fexe ba teeloo seen xel ñoom ñaar ñëpp diw defal attention ci diw ñëw ni diw defal attention ci diw ñoom ñaar mooy tonte commencé am seen diggante ku ne am bët booy xoole sa moroom moo tax yàlla waxoon na ne follil sa nopp yi folli ko tafal say bët information buñ la mën a wax ci nit gëstu ko in jaakum fasiqun bi naba in fatabayyanu yàlla nee na boo xëyee xëy ñu wax la ci nit loo yaakaarul woon bul gëm diw li muy wax ci yow bul gëm diw yow rek la contour bul gëm defal très attention ci diw te léegi li gën a garaaw mooy kiñ lay tere kat moom la ñuy xëy ànd ak moom dañ lay tere nit nan la defal attention ci moom nga xëy suba gis ko mu ànd ak moom yàlla bu mu ñàkk fay na nag balay leeral la naan la maa ngi la ko doon moytuloo sax mais boo gisee tey ma ànd ak moom dafa dara jaxase rek in jaakum fasiqun bi naba in fa tabayyanu yàlla nee na buñ la joxee information ci nit danga ko war a gëstu mais ñu wax la rek nga nekk benn nopp am na ñoo xam ne benn nopp lañ ku jiitu ci ñoom yaa leen moom kilifa du nekk benn nopp bu nit ñëwee kalaame la nit gëstul laajaat beneen version toppaat ko kilifa danañu ko wax problème mu topp ko six mois ba xam fan fan la dëgg gi féete mais bul gaaw a àtte jéng gi nanu ko wàññi am na ñoo xam ni danoo jéng ci ñenn ci seen soxna yi ba lu mu leen wax ñu gëm ko doomu kooku ngay gën a fonk doomu kooku ngay jëndal sërica doomu kooku ngay gën a jàpp du yoon ku yor ay soxna da nga leen di yemale bàyyi leen takk seen aawo ànd ak moom ba dara dul woon dara mu taxawu leen biir ak bitti lu ne lu ne mu daj ko ngari ndax yéen leb na xaalis fu ne jaay na ay takkaayam teggi na nattam lu mu xam def na ko ngir yow nga dem ba am ku bees jéng fàtte ko moo tax Seydina Muhammad nee na yowmal xiyaam koo gis muy dox pant daa jengoon ku yor ñaari soxna jeng ci kenn ki yowmal xiyaam dangay ngay nii ngay doxee nii pant am na ñuy fakk jëf walan tastatiu an taadilu bayna annisaai walaw xarastum fala tamilu kulla almayli fa tazaruha kal muallaqa am na ñuy fakk jëf am na ñoo xam ne coono boo mën a daj ci moom duñ ko gis fàtte nanu ko te sayduna muhammad doxewul woon noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy denc saydatuna xadija nga xam ni xadija magee na yonent bi 15 ans fukki at ak juróom xadija ëpp alal yonent bi foofu mën na koo jënd waaye gis nga keroog bi nu farataalee seen diggante ñoom ñaar nga xam ni xadija dafa ànd ak Seydina Muhammad wër banque yi banque bu mu dugg toog ak directeur bi ne ko ñaata kont laa fi am mu ne la am nga fi nangami compte nga ne ko ban tura ci nekk mun ne la Xadijatu bintu Xuwaylidin nga ne ko bis ni ki tey évancel sama tur man Xadija fu ma amoon compte bind fa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi defatuñ ko de pour jël seen alal yi di ko miite sa tur bu ko yaakaar ñi ngi xool ñoom nu nu dolleekoo ci yow. di la nax rek sa terrain bi nekk fee bi nekk Mbambilor bi nekk Almadi bi nekk Mariste nu may def ba ma jot ci nangam nangam te loo may aaw bi doo ko may ñaareel bi mbaaloo may ñaareel bi doo ko may aaw bi pant ci say jabar ba ñépp xam ni diw nga féeteel waaye keroog bi bi sayyidatuna Xadiija génnee àdduna sayyiduna Muhammad daf ni balaa ñëw dugal soxna si ci bàmmeel bi nanu ma may man yonent bi ma dugg ci bàmmeel bi tëdd fa ab diir yonent bi tëdd ci bàmmeel bi temps bu yàgg génn ne bismillah dugal leen xadiija ñu dugal saydatuna xadiija ci bàmmeel bi keroog bi nu paree la ko saxaaba yi ni saa yu ñu gisee nga def loo mësul def danañ la laaj parce que yaa ñu ko waxoon lii nga def tey mosoo koo def lu waral nga def lii nga def yonent bi ni leen bi ma duggee ci bàmmeel bi tëdd fi yëg naa ni malaaka yi yor xéewal ak barke ak yërmande ñoom ñëpp dañu déplacé wu ñëw installé wu ci bàmmeel bi bi may génn yëguñu ma amuñu droit bouger ba keroog yowmal xiyaam ma bëgg xadiija nekk ci bànneex ak ndaataange ak mbégte ba keroog ma koy fekki man muhammadu rasulullahi nit bu la lebalee teraanga doo ko fàtte waaw nit bu la lebalee teraanga doo ko fàtte mat naa bàyyi xel de moo tax mu ni fen baaxul jullit du fen al muminu laa yakzibu la sayduna muhammad wax waaw al muminu laa yakzibu sayduna muhammad nee na jullit du fen waaw jullit du fen loolu la yonent bi wax mais am na ñoo xam ni xam nga nit boo demee ba sa jikko yàqu ba boo jubee ay nit ñuy waxtaan ñuy wokkante am na ñoo xam ni ku leen seen ñuy ñëw dangay gis ñuy dem mu xef ko ba sant lu xew diwa ngi ñëw boo demee ba passé ñu continuer seen waxtaan jullit dafay dafay rusa àgg foofu am na ñoo xam ni loo leen wax boo xëyee déggaat ko mënuñoo téye secret am na ñu mënta garder secret seen biir yi ñooy xoos boo leen waxee secret danañ ko garder lundi mardi mais mercredi moom buñ ko waxul dañuy exploser li may dégg li may dégg Oustaz du Fall li may dégg il faut nga wax ko te ki nga koy wax kat danga naan mooy sa doomu ndey sa doomu ndey boobu am na beneen doomu ndey moo tax mu ne jullit du fen waaw jullit du fen jullit dafay wax dëgg doontele sa bakkan dañ koy jël waxal dëgg mais di fen di yàq ay diggante di fen fen yoo xam ne teguwul fenn am ñoo xam ne léegi dañuy fen nag bay waat teg ci waat di fen di jaxase ay nit waaw ñaar ñuy ànd nga fexe ba wax fa ba wax ca wax ju yàq seen diggante mais looloo fi xew du nu wax dëgg am na ñoo xam ne du ñu wax dëgg te fen dafa xaraam boo demee ci téere yi dañ lay wax ni li nga xam ni moo mën a euh, euh, yenn saa yi nga dégg ku ni parfum bii daf ma allergie mu ne li mën a allergie malaaka malaaka dara allergie wu ko mais ay fen dafa allergie malaaka malaaka bu dégg bu gisee fen wala mu dégg fen bakkan yi day fat malaaka day allergie moo tax nee naa leen réew mi am na koñ yoo xam ne malaaka yi bu ñu fa dee doxantu léegi ñu ñàkk seen bakkan yi parce que fen day allergie malaaka te ñun dañuy wax loo xam ne dara du ci dëgg ndeysaan fekk ànd boo xam ne yàllaa ko lal ñaari nit ñuy ànd nga ne ci diggante ba di fen parce que nag am na ñoo xam ne amuñu kersa am na ñoo xam ne amuñu gàcca am na ñoo xam ne amuñu rusukaay <laughs> yàllaa ko wax am na ñoo xam ni nga waar leen bay bëgg dee du duñu soppeeku a anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun parce que xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ghishawa wa lahum azabun azim yàlla nee na am na ñoo xam ne maa encastré seen xol bi encastré seen nopp yi du duñu dégg loo leen wax ci mbaax duñ ko dégg taaj nañ leen fu ne diw yaa wax lii diw diw a ngi nii toog waxaatal ngay wokki doq gor day moytu di ruus am lu muy bañ mu ne wa yaxrumu dana xaraam alayhi ci mukallaf alkazibu fen ñu ne ko ndax fen kese moo xaraam ci mukallaf mu ne déedéet wal xiibatu ak jëw <laughs> waaye baa ngoog de jëw am na ñoo xam ne dañuy woor sax di jëw buñ commencé ba ca digg ba ni may ma rek bul yàq sama koor gi yow bàyyil bañ ndogu nga ñëw ma àggaleel la ko wal xiibatu ak jëw ku leen wan gannaaw ngeen nekk ci deram ku la romb di dox yoonam nekkul ci yow nga koy jëw foo toog balaa ngaa bég dangaa yëkkati gor ni yow ne ci deram bi di wax moo tax baat boobu ñuy tuddee dëmm nga xam ni Seydil Xaaji Malik nee na amul ku ko wax nit dee moo la teree dem safara dañu ni baat boobu li muy xaraam xaraam nga xam ni kenn waru koo wax nawleem baat boobu bu doon tey dañu naan am na ki ñu naan moom la mooy kiy jëw parce que jëw mooy lekk yàpp nit yàllaa ko misaal ci alquran ijtanibu kasiiran min az-zanni inna ba'da az-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula laxma aqihi maytan fa karihtumu yàlla nee na ndax bëgg nga waaw am sa mbokk mu génn àdduna ñu yóbbu ko ca margo ba di ko waajal pour sang ko am ku jaar ca gannaaw yor paaka ak fourchette teg këccëbam di dagg di lekk ndax bëgg nga ko nga ne uu yàlla loolu daa salte ni ko nit di defee yàlla ni kon bàyyil jëw heure booy jëw yaa ngi lekk yàpp nit am na ñoo xam ne suñu wéetee deru nit la ñuy wéttalikoo ku ñu tudd nga ayibal ko ñaari nit dañuy toog di waxtaan kenn romb leen ñu ne diwa ngi ne ñu wax ci moom léeg-léeg sax da gis kuy participer ci jëw te xamu ci dara boo ko nee mu ne ah li nga wax kay nuru na ko ni muy doxee laa xam ne nuru na ko lu la ci wóor toog di yàq nit Sénégal looloo fi bari toog di yàq nit maandu leen ci nit ñi dooy lijjanti sa problème yow demagoo barzak yàlla àtteegu la xamoo yow mii sa tiyaabaak say bàkkaar lu ci ëpp mais heure boo xëyee ci problème mu nit ñi ngay gontu di ca xëy te min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaani yonent bi neena na bokk na ci liy tax sa lislaam rafet mooy lu sa yoon nekkul maandu ca jullit day maandu mais diw nangam nangam diw nangam nangam moo tax Serigne Cheikh Tidiane si mi nga xam ni mooy moom la ñu tuddee élève yàlla bi élève yàlla bi ki yor xam-xam boo xam ni xamuñu fu mu ko jëlee Serigne Cheikh Tidiane si ñu koy dakkantalee élève yàlla bi Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku fukki nit di wax safaan bu la yàlla fayee nga dem na lam ca tegoon sax mooy jaratul ngay jaamu yàlla fukk ku am fukk yu lay critiquer moo tax nag siiw ci benn côté baax na de parce que bu ñu la dugalee ci internet bi wala nga génn tele wala nàngam danga am fukk ñu wax lu bon ci yow. yowmal qiyaam fukk ñooñu nag dékki yàlla ne la kaay kaay ana say tiyaaba nga ne mi ngi nii yàlla ne la ëmbal ba mu jekk nga ëmb ne la joxal diw. lu tax yàlla lii pour lan <laughs> yàlla ne la ah, xanaa da def da fàtte àdduna ba ngeen fa nekkee moom xamu la. mais comme moom daa siiw ñëpp ko xam daan nga faral di wax ci moom <laughs> yow kii fu mu génnee nga ni dégg naa nangam ak nangam yàlla nag nee na képp koo xam ni yaa ngi jëw nit parce que yowmal xiyaam ku dekki ku nekk yàllaa lay àtte jox la sa téere jëf ne la iqra kitaabaka kafa bi si kal nafsika ma alay alayka xasiba nga war a liir sa téere sa téere jëf moo tax Serigne Cheikh Tidiane si nee na balaa nit a waat ni reyul nit <laughs> nga bàyyi ba ëllëg am na ñoo xam ni kàddu yi leen nit wax moom la ñuy di ko misère ba feebar amee guwaatoro jaare fa dee réew mi nag ku nu fiy teg stress nga di ko nangu yëgoo lu xew sa xol bi bu ci yàlla nekkee dara du la yëngal amal foo visé teg fa sa bët li ci ginnaaw bu ko lijjanti bul déglu commentaire fixeel fa nga bëgg a àgg ñaan yàlla luy teraanga yàlla jox la ko te nga jubóog sa boroom sa waajur na la gërëm bu la sa yaay gërëmee sa papa gërëm la yàlla gërëm la Seyduna Muhammad gërëm la keneen ku la mën a critiquer bu ko sax lijjanti yàlla yàlla defal ñëpp tawfiix maa ngi am mbégte lool di nuyu bu baax mbooleem téléspectateur boo xam ni yaa ngi doon suivre émission bi yàlla yàlla barkeel leen ci daraja Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bu baax sunu papa Oustaz Fall ca Kébémer ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu suñu baay asfal ajaratu ndéygéey ñu ngi koy nuyu soxna Fatou Mbuub soxna faat Kayre ñoom ñëpp soxna aji Amet ñu ngi koy nuyu Abdoul Aziz Hadj Malick Babacar Fall maam jaara ñoom ñëpp ñu nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla barkeel leen euh, maa ngi nuyu alxaaji moodu Guèye ca Makka Ndiaye ñu ngi koy ziyaara bu baax di nuyu suñu yaay soxna Thian euh, Guèye ñu ngi koy nuyu di ko di ko ziyaara bu baax di nuyu maam Issa Guèye di nuyu soxna Maguette Ndiaye nday lay Eh, faatu maa koy nuyu di nuyu Thian di nuyu tabarakallahu waa Makka Ndiaye yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu eh, eh, Ndeye Leye duñ ko fàtte awaloo ñu ngi koy nuyu di nuyu Maram di nuyu Khady ñoom ñëpp ñu nuyu leen ziar leen nogay duñu leen fàtte ñoom ñëpp ñu nuyu leen ñaanal leen yàlla na yàlla barkeel leen mbay Ma Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax Dame Khady du duñu ko fàtte am satu Sidibé maa ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax di nuyu Talla Gueye soppe Seydouna Mouhamad ca itali Genova ñu ngi koy nuyu di nuyu Baye Bàcci di nuyu Mbaye Thian di nuyu Soda ñoom ñëpp ñu nuyu leen waa Màkka Ndiaye ziyaar leen ñaana leen yàlla bu baax yàlla yàlla barkeel leen di nuyu soxna Salimata Fall di ko ziyaara bu baax ak borom këram Mansour Fall ñu ngi koy nuyu Mbaye Maane Fall duñ ko fàtte Serigne xaadimloo bu sëñ Basiru Lo Ale Aram Lo ñu ngi koy nuyu soxna Cillo ñu ngi koy nuyu moom itam di ko ziyaara bu baax di nuyu yaayam di nuyu ñoom Fatima ñoom ñëpp tabarakallahu ziyaar leen Mami Penda ñoom ñëpp nuyu nuyu leen nuyu nag si Malick Couture mi nga xam ni mardi bi jot moo may habillé di ma sañseel maa ngi koy nuyu nekk ca Kër Massar si Malick Couture di soppee Seydil Hadji Malick boobu numéro téléphone am nekk 77 614 57 00 77 614 57 00 si Malick Couture nekk Kër Massar ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax moo ma ñawal lii ma sol nuyu soxna yaa awa mi nga xam ni mi ngi nii taxaw sama kanam di ma xaar pour ñu dem tournage nga xam ni mayu ma jàmm fu ma tourné mënu ma ñu dem heure bi jot na yow la ñuy xaar nuy Hamza ñoom ñëpp ñu nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla yal yàlla barkeel leen nuyu waa itali Italie duñu leen fàtte suñu réew moomu yal na yàlla def fa jàmm waa Belgique waa Amérique soxna Wuri Diallo ca Amérique ñu ngi koy nuyu jee astu sare ñu ngi koy nuyu duñu ko fàtte moom itam ñu ngi koy ziyaara bu baax di nuyu waa Amérique yëpp ñaanal leen yal yàlla barkeel leen ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbooleem téléspectateur boo xam ne yaa ngi doon suivre émission bi di leen ñaanal yàlla bu baax Bintu alin sàll ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax Khadija Seck nekk ca Tëngéej ñu ngi koy nuyu Dan Mbàkke ca Ngumba ñu ngi koy nuyu Hawa Diallo maa jigéen Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Fatloo Sarr Ulay Diallo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Iba Ndiaye ca Italie Fat Bintu nekk ca télévision Italie ñu ngi koy nuyu Fat Ndiaye Kayre ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax soxna Maam Say nekk ca Genova yàlla yàlla defal ñu dégg gu ànd ak topp ba beneen mardi incha allahu ta'ala wasalaamualeykum wa rahmatullahi ta'ala.